arrête woote journée boo xam ne dañ ko tuddee xeex mbon gi te bu ko defaatoon suba ñu dalaat ci kawam moom Wally Seck ñëw ma ñëw ko defaatoon suba. bàyyi turam ñu dalaat ci kawam. bàyyi turam da nga jàng alxuraan yàlla nee tooy bàyyi turam Wally Seck doom la njur ka bàyyi turam oustaz Matar bàyyi turam ngir yàlla ak di biir Rasulullah Wally Seck new fi kan may faramason lan mooy góor jigéen. te góor jigéen mooy ñaari góor yi defante nee naa leen ku teg sa bët wàcc liggéey lan mooy couleur man loolu am naa ko su ma xamoon sol ko yéen yow kay yaay def formation góor jigéen. Hmm? bàyyi leen waali sekk mu naan leen mu wadd. bàyyi leen xale bi nañ ko bàyyi man maa wax loolu nañ ko bàyyi defu la dara waxu la dara ànd sàmm jikkoy nga nekk sàmm jikko mais moom il n'a rien fait microbe la indi way ah loolu mooy drapeau góor jigéen nañ ko bàyyi ngir yaa wala sóoli mu dund nañ ko bàyyi. kenn du ko gis ci góor gi ku ko gis man la faatu du am bàyyi leen ko ngir yàlla doom la ñu jur ko man xam su may waxee doom la dama teg yow ci kanam teg Abdou Fall ci kanam teg keneen ci kanam teg ay doom doom la bàyyi leen doomu jàmbur ngir yàlla ji mi rasul laay jàng yaa ma gën a jàng alxuraan foofu bàyyi turam loolu rek laa la ñaan waxal di ne. <laughs> xam nga yow du ma werante ak yow. Hmm. jombale naa ko sax sama bopp. bàyyi turam rek ñoo juboo sama xarit nga. da ngay bàyyi turam rek. ma ñëw ci diggante Sarr ak Thia ay kàr bàyyi turam rek jubóo doom la. d' accord yow du werante sa jarbaat la. bu waroon weranteeg yow du la bàyyi nga yegal bàyyi naa la nga wax ba daaneel dama bëgg a wax ne leen li weesu woon ñun ànd sàmm jikko yi lañ doon wax damay wax en tant que saar Sarr muy jël responsabilité ne duñu làmbatu. ànd sàmm jikko yi mosul a prononcé prononcé yi ne góor jigéen la mosul dañu wax ne. dafa am ay actes yoo xam ne yuy promouvoir ngóor jigéen la loolu la ñu wax ne na ko arrêté foofu la ñu yem ñun ñeneen ñu ko accusé góor jigéen ñoom ñoo xam mais dafa am drapeau yu ñu jël porté ko ci jour sol ko ci kaw seen jour boo xam ne ba mu ko defee ba ci suba sa LGBT yi ñoo bind ne ñu ngi koy félicité waxu ca dindiwu ca loolu la ñu wax ak yeneen yoo xam ne moo ko jiitu yoo xam ne nii mi ngi ko doon def ci ay actes loolu lañ wax ne na arrêté kuy mbokkam na wax ak moom loolu na arrêté loolu laa wax ne su ko defaatoon suba ñu dalaat ci kawam mais ku ko tuddee góor jigéen sunu yoon nekku ci mais damay wax en tant que ñu responsable ànd sàmm jikko yi man maay ki topp ci coordonnateur bi dañoo bañ ak ngóor jigéen ak lu koy promouvoir tey li mujj nii bu fekkoon ne dafa confirmer ne drapeau góor jigéen yi la kon ànd sàmm jikko yi ñoo ciy jiitu mais kenn dégguñu ci bal sax dañoo alerter ne attention buñ ñu dugal ci pièce léegi nag lu mujj yi ñu ko bëjjëlee ba ko euh, effacé li weesu dañ naan leen non dafa am loo xam ne preuve yi mi ngi fii amul wërantu làmbu daj la koo xam ne nag yaa ngi koy défendre ci lu mujj li weesu tamit na nga ca wax ne ko na arrêté am na loo xam ne nii làmbatuwuñ ko dañ ko am ay preuve gis ne am na ñoo xam ne nii dañ leen bañ ci société bi muy ak ngóor jigéen am na lenn lu ñuy jëfandikoo ci seen drapeau seen mbir mi ngi affiché wu ci ay mbiram na ko arrêté loolu la ñu wax su ko defee nag nañu bàyyi suñu doom jeeg yooyu yooyu moom ngeen wax ko ñeneen ñi nga xam ne nii ñooy wax leneen mais ñun lii la ñu wax su ko defee nag ñu ngi jéggalu mbokk yi ci euh, kàddu yi di leen ñaan euh, ñu wëy di am vigilance ma arriéraat ginnaaw tuuti vigilance bi mooy góor jigéen ya ca France seen bàjjeni nee nañu nañu am résistance fii ci Sénégal résistance bi nag fii lañ koy fekk ñun ay sëtu Maba Ba lañ ak Cheikh seexal Hadj Omar ak Serigne Touba ak Maam Bou Kounta ak Cheikh Al Hadj lañ doon bañ démb tey ba léegi seeni sët moom lañ nekk di ko bañ te nag li ñuy bañ ñu ngi ko bañ ci turu diine ak ju mën ci doon nag ak ñu mën ci tudd. amul lenn ci réew mi ku am benn ngëm-ngëm ànd sàmm jikko bu ñuy tourné dañoo dem ba ci ña gëmu diine ñu signé ne dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen ña gëmu diine te boo sacré nga xam ni gëmuñu luy diine dañoo bëgg ñu criminaliser ngoor jigéen ci loolu la ñu nekk ci Sénégal kon lépp luy ngóor jigéen ak luy xeetoo ngóor jigéen ak lu koy promouvoir dañuy taxaw ne la arrête ak lu mën ci doon nag ak lu mën ci coûter nag dañ koy jënd ko defee ñu ngi jéggaluwaat bu baax a baax ci kàddu yi ñu dem résider lu si dugg ci